lu doy waar rawatina ci jamono joo xam ne président Macky Sall dafi def sortie ne du présenté wu pour troisième mandat. àdduna mhm. yëpp ne ko gongo ñëpp di wax ci démocratie sénégalaise am na muy kiiwee na mu rafetee maanaam. Euh, dañu gisoon lu lu lu lu rafet mhm. ci Sénégal mhm. Mhm. et jamono yi ñu dellu siwaat un peu ci yeneen ki alors que nit yi ñu ngi doon yaakaar sax ne ay waxtaan ñu ngi am pour juboo ak ak yu ni mel et tout ça mais ndaka du demee noonu te itam waroon demee moo tax ma ne la yaakaar dafa tas euh, maanaam président Macky moom kenn du wax ne deful dara Sénégal pour ma teel a wax loolu ba xam ne du ma wax waxu bëggumaa wax loolu waaye nag liñ ko lebal moom fayuñu ko ndaxte lii muy toppee euh, Ousmane Sonko mi tey bu doon maître Abdoulaye Wade topp na ko ci waxoon na ko waxoon na waxoon na fi ñu dem génne ko ca palais ba bu fekkee deful nangam bu fekkee deful nangam baat bi ñuy wax ni appel euh, xaw ma lan insurrection ah, dafa mel ne ci ayug dong lay bëgg a xewee nii mu xewee ba nga xamante ni man sax man damaa wax ba daaneel ñu ne loolu nga wax ci émission bi wala loolu nga wax ci laay bindu ko koo xamante sax mënoo yëkkati ñaari nit mën nañ laa tuumaal ne li nga doon wax da ngaa bëgg a yëkkati nit ñi da ngaa taal dëkk bi bëgg a def. maanaam si appel appel euh, nga bëgg nga baal ma appel à l' boobu sax defe naa jamono yi jàpp nañ ci journaliste bu mel ni Pape Alé waaw ah, mu ngi moom itam euh, entamé loolu ñu naan grève de la faim parce que moom itam ñu ngi ko jàpp waaw. waaw léegi nag bu fekkee loolu da nga ko bëgg a def jumtukaay xam nga loolu bu dee am day am day am même même muy muy muy wàllu àtte li ci ëpp dafa am ñu ne ci seen ginnaaw ndax boo toppee toppante gi moom daa am kilifa kilifaam président de la république di kilifaam maanaam bu fekkonte ne situation bii président Macky Sall bëggul mu am ci réew mi du am kon leneen am waa Sénégal ñi ngi doon xaar tey mbirum candidat yi ñu naan ndax waa APR kii mooy nekk seen candidat kii du nekk seen candidat mbirum Ousmane Sonko mii ñu jàpp ne mbir mi sax jeex na gars yi kat am na lu ñuy waxtaane ci suuf mm. looloo gën na jàmm am ci réew mi nga delloowaat delloowaat ñu ginnaaw ba pare ne borom kër laa boo xam ne a kër gi damay wax sama xel ni ku jàpp ne kuy dem da nga dem ci demin boo xamante ne façon bii nii moom nga ñuy moom nga ñuy tegal Sénégal Nicolas xoolal liñ fi perte ci ay milliards ci ay nit ñu war a liggéey ñu seen yoon nekkul booy xool tey ci image gis ko ñu lakk otoom te yoonam nekku ci sa yaram sax otoom ba da koo leb di ko fay matagut am ñoo xam ne tey jii xëyuñu ubbi ñenn ñi amoon ni rendez de mu ñu defe ko te loolu bu amee cim réew amaat cim réew amaat cim réew dellu hmm. ku ko joxuñu itam da nga n'est-ce jërëjëf Serigne Mbacke Sylla doy na waar en tout cas ñu ngi jot euh, sénégalais yi ngi réagir ci àdduna bi yëpp inquiétude yeeg na leen ko waxee sànq ba may tàmbali <laughs> man xaaja guddi xam nga sa yaay di la euh, di amalee di inquiété wu ci seen seen doom yi mbaa yéen a protégé wu àdduna di la woo dégg naa seen réew mi jamono yi lu fa xew cetera et cetera alors ñu ngi doon dugg ci une bonne dynamique ah mais dafa mel ni delluwaat nañ na woon fa woon Sénégal waaw xam nga xam nga xam nga état daa compliqué trop trop trop trop trop trop trop parce que boo xoolee eh, li Mbàkke wax nii xel da koy daal di mën a nangu te état bi boo leen laajee ñu ne ñoom lu ñu a am jàmbaleen ko gën a xam nga boo gisee bu gis nga kon accès bi ni muy xaw a doy waar hmm. parce que ñoom dañuy wax ne deux roues yi ngeen di wax ak essence bi ñuy bañ a jënd yooyu gouverneur il est dans son rôle moom moom ñoom état bi dañ naan ñoom ñoom la jox ñoo garant de la sécurité hmm. lépp loo xam ne li jar na sécurité rek hmm. ñoom dañ koy appliquer dañ koy def pour réew nekk ci jàmm te ci geneen wet ga nga jàngat ko mu mel ne dafa mel ne xëy na loolu nangam ak nangam moo tax ñu naan état warut a faible ndax dafay dafay dafay def le man maa ngi fàttaliku sax sax ay weer daaw xaw ma bi nga xamee ni gars yi ñu ngi doon dem di am ay yoo xam ne yi tabaarakallaahu ci Casamance léegi jàmm nag am na ñu ngi ko doon kii mais kilifa yi dañoo waxoon ne dafa leen di jaral tout à tout maanaam même bu fekkee xam nañ sax bakkan mën na cee mais dafa leen di jaral loolu pour sécurité am c'est-à-dire que la sécurité n'a pas de prix mm-hmm. léegi nag ci buñ taxee seen tegee seen tànk foofu ak lu dañuy jàpp ne lee la loolu la ñu war a def ndax ñoom loolu lañ loolu la leen état bi di laaj loolu la leen nguur gi di laaj loolu la loolu maanaam loolu mooy seen mbubb bu mën a sol hmm. léegi nag bu dee ca côté gee nga xam ne ñun sénégalais lambda yi et ñoom ci suñu toogaayu tey bii tey jii ban mën a wax ni ñoom loolu mi ngi aju ci ñoom parce que tey ji mar détail yàlla bu mu am su amoon ay nit ñu ñëw song ñu ñoom ñooy ñëwaat. Mm-hmm. gis nga gis nga affaire bi ni mu ni mu naqaree li jënti kon doo mën a wax ne kon ñoom bëgguñu jàmm. Mm-hmm. ah ci ci ci wet waaye boo ko jàngee ci wet tamit day mel ne xay xeetu fayontoo wala bu ma kii defee lii ma wokk ko bu ma xële xëccee ne ma wokk ko. parce que ah. si oustaz nga baal ma réew mi foofu la toll. voilà réew mi dafa toll ci defante. mais defante nag kilifa defante ci niveau yëpp nag amatul defante dafa amati kii euh, niveau fii fu mu nekk kilifa yeeg kii ñëppay defante. waaw léegi nag loolu république moom. li bu ma ko waxee le le mont Montesquieu dafa waxoon ne république dëgg dëgg dëgg principe am moom mooy la vertu. Hmm. te xam nga ne vertu mooy jikko ju baax mooy jom mooy taxawaay loolu mooy sàng république république bi door a mën a dem. Hmm. léegi nag vertu yooyu su fekkente ne ñàkk nañ ko léegi. Hmm. gat sa gi day daal di ñëwaat. nag voilà defante boobu nag. léegi ñëppay defante nag defante gën a bon mooy defante kilifa. maanaam kilifa bu ñu li tax du defante singali la. moom singali la. waaye du defante non c'est pas pour stigmatiser qui que ce soit sax mais bu ngeen xamee seetlu ngeen gis ne réew mi léegi ñëppay defante. voilà très bien moo parce que parce que pour un oui pour un non kenn ñëpp mer. voilà légui nak fofu nak bu kérogé nak dañu xol ba xam. Ah, ndax état bi limi fayonto tombe yi mu teg dëgg la wala du dëgg. lool nak lu ci sun kanam lay nek pour mu mën leer parce que ñu dem nañ ba teg ci ndodd Ousmane Sonko né entreprise de terroriste. Hmm. manam dal ay nit yoo xam dañoo samp dara. ngir def wàllu terrorisme ci biir Sénégal man nag xaw loolu fu ñu ko jëlee waaye xëy na xëy na après danañ leeral Sénégal yi ndax ñoom voilà am voilà xëy na ñoom information yi a hmm. man nañ ko bañ am waaye man bu fekkente ne ñoom dem nañ ba nga xamee ne kilifa yi eh, ndomba tànk yi leen yàlla jox ak seen toll ci réew mi ak ni Sénégal demee hmm. suñ demee ba nga xam ne fa yontoo kilifa jàmm ñàkk a bëgg a jàmm jaral na leen gatsa gatsa hmm. kon ñun nekkatuñ ci république hmm. waaw moo tax mbir mi fokk ñu jàngee ko ci ñaari angle yooyu li gis nga ci alxuraan da ngay demam yàgg comme ni ko Mbàkke waxee léegi nii doo xam ba xam sax yow réew mi lu lu ñu fi bëgg gis nga boo demee ci suratul jinn ni dafa am benn euh, jinne yi xam nga am na ay affaire yi toogaay yu daan am ci asamaan seeg yooyu. Mm-hmm. jinne yi dem di déglu ji pour am information yi jóge ci yàlla pour man koo coppati joxe dara mais bi yàlla verrouillé carte gi <laughs> déggatuñu woon mais ñoom dañ doon laaj seen bopp ñu ne wa ana ñun ci suñu bopp xanaa. est-ce que yàlla dafa bëgg ci kaw suuf. musiba waaw aw araada aw araada bin fil ardi kii. rachada yëpp ne waaw ñun déggatuñu information yi ah. <laughs> xamuñu ko xam yàlla daa nar fi boo tax Sénégal doo xam fooy teg sa tànk. donc voilà ñun nag li ñuy ñaan mooy jàmm comme ni ko waxee bi ñuy tàmbali nii. mais fii yi fi toll daal waxtaanoon. Hmm. comme ni ko Alioune Tine woon. fexe ba lépp lépp ñu teg ko ci suuf. ngir intérêt réew mi ñëpp dem ci élection yi inclusivement hmm. loolu moo ko waxtaan euh, waxtaan lii ma dégg ñu bëri di ko wax dialogue inclusif maanaam waxtaan boobu moom insisté ci moo doon ëppal njëriñ réew mi sax ci boppam ak kii fiy jógee kii nar a ñëw yëpp moo leen doon arrangé